lay fay nuyoo ñi nga xam ne ñu seetaan ci biir mi ak ci bitim réew di la jaajëfal ci fii nga nu daaj fii nga ko muy barab bi nga xam ne fu ma xool gis menn mag ci sunu mag ñi tableau bu ma liir gis seeni wax muy waxi démb yi nga xam ne ci la defaree tey mhm. kon bu nu dalee fii ci barab bi bëgg nañ ci lool ak itam dalal ñu fi ndax bëgg nu am tuyaaba kon ñu ngi lay jaajëfal baax a baax di am mbégte lool ci dalal gi. jërëjëf alhamdulilah. jërëjëf. Mm-hmm. yow Saas jërëjëf defe naa ne yëf yi moom ñëpp ñoo ko bokk ñu ñaan rek ñoom itam yal nañu yàlla tas seen barke. ñun ñëpp ñu fekkee ci ginnaaw bu ñu la nuyoo ba pare sant la wax dëgg yàlla gërëmaat la ci teewaay bi eh, ñu bëggoon a dugg rek ci bu ñu nee Oustaz Alioune Sall mm-hmm. lan la ñuy wax kawlak fa la cosaan ba ne. déedéet. fu cosaan bi ne. sas Alioune Sall benn kaw-kaw la bu jóge ci dëkk bu ñuy wax Càlle Càlle Càlle ci région Diourbel mhm. nekk ci département bu tudd Mbacké mhm. nekk ci arrondissement bu tudd Kayal foofu la Càlle nekk dëkk ba rëyut mhm. waaye foofa la nu bàyyi koo waaw alhamdulilah euh, gannaaw bi nga xam ne gane nga àddina mm-hmm. lan ngay fàttaliku si sa ñi la meññ ak sa ngonete naka la demee waaw man day sama waajur wu góor ngi tuddoon Serigne Mbay Sall méccam safoor la yoroon mm-hmm. sama waajur wu jigéen mu ngi doon Soxna Astu Kan Sall ndeysaan ñoom ñaar ñëpp wàcc nañu liggéey ñun ñu gane àdduna càlle ba am juróom-benn at jàpp juróom-ñaar sunu waajur bu góor jóge càlle to dem mbàkke bi muy dem nag mu yóbbaale nu ñu àggee dale ca dëkk boobu ci mbàkke fa lañ dalee baa yàgg ca njàng ma te lañ ci xam bariwut maa ngi fàttaliku suma sama yaay masaan wax foo yem ci alxuraan ma ne ko alhamdulilah rabbil alamina ca laa yem ca jooju jamono jamono mu ne waaw yow léegi xanaa yow doo weesu kon alhamdulilah rabbil alamin comme man moom rek laa jàppati moom rek laa mokkal moo waxee fooyam rek ma ne ko alhamdulilah rabbil alamin ca lañ ma génnee ca daara ja dugal ma école arab defe naa da ngeen far lii de ku ñuy wax Omar papa moo doon dalal arab nga dugg arab ma dugg arab waaye arab it. Mhm. yàgguñu ca ndax lañ ca foor bëriwut. déedéet ñu gële ci arab ba. dugal ñu école tubaab. Mhm. te ñaata at ba tey. daanaka ci diggante sept huit neuf dix yooyu. waaw nga dem ci tubaab bi. nga dem ci tubaab bi tubaab bi nag moom. Mhm. semaine bi ma tudd. Mhm. mercredi laa tàmbali. <laughs> jeudi vendredi laa génn. waaw lu la génnee teel nga génn. waaw benn sëriñ ci sunu sëriñ yi moo ñëw yenn sunu kër. ñuy añ mu laajte ñu ñu ne ko wàcce bu ñu mun dañoo jàngoon ñu ne waaw mu kontaan loolu ne waa leen góor ndeysaan bi ñu ñëwee na mu laaj lu ñuy jàng waaw nga war koo nettali ñu ne ko tubaab la jàng mu raxasu suur añ hmm? waaw daal di maa di mer raxasu léegi mu suuree añ ñu ne ko lu hmm. mu ne suñu waajur ñii nga bëgg a ñu jàng tubaab hmm. duñ dégg tubaab duñ ci liggéey duñ ci tedd ka lolé ba yénuma len ko. Hmm? mu né takal len sen saak. ñu tak sama ya da tak suñu suñuy wa bo la ñok mom mu yobunu dem ba dëkk ñax kup kup kup kup mu né bu na fa bu bu nu yóbboo daaraam dañuy wax né ki dafa bëgg ay donga motax mu génne len wa kon da yóbbu daara jambur hmm. mu yobbu ñu daara yu gu ñu wax alaaji màggat jéey. yal na ko yàlla yërëm. foofa la nu bayyi donc ñun suñu jangum tubaab fofu la yam ñetti fan dal ci la yam ñu génn nu nu daara. boobaag léegi na ci daara lañ nekk ba démb. waa léegi ba nga demee ci daara ja est-ce que adapté wu nga maanaam bokk nga noo ko dundee. waaw daara booy door a dem doo bokk. bokkoo déedéet lan moo la njëkk sonal. li mu njëkk sonal mooy damaa ñëw rek fekk ñuy def am po. am ku nëbb dara. ci ay poosam. waaw ci ay poosam. waaw bi ñuy seet di seet mën leen mën leen kii nëbbu. boobu miin na góor rek pes ma dal ma dal yëg ne ndekete fii kenn du wax ne kii moo nëbb nangam. dañ noonu lañ la ganal noonu lañ ma ci bis bi kay nag lañ ma ganal loolu. léegi bu loolu weesoo ba nga nànd nga nànde yëf yi. waaw loolu weesoo nag xam nga da ngay ñëw ndànk-ndànk parce que fekk naa fa sama yaay ju bokk ak sama yaay jenn yaay. ndeysaan. fekk fa sama bàjjen ju bokk ak sama papa ndey ak baay. Mhm. ci seen diggante laa nekkoon. kon tumuranke woo daara. non non tum suñu daara sax même donc yeneen duñu tumuranke ndax. ndeysaan góor gi daawuñu yalwaan loo. ndeysaan loolu mbay la ñuy dundee. wax dëgg yàlla léegi nag ma nekk sama diggante sama tante jooju ak suma bàjjen. waaw su ma xiifee léeg-léeg mu ñëw ci kii su ma xiifee ci kii. am na façon boo xam ne su ma ko daan jàngee rek sama bàjjen xam ne damaa xiif. Mm-hmm. façon façon jàngin la wow. waaw su ma sama kàddu ci daara ji rek. waaw sama bàjjen xam ne yaa quelque chose. biir bi daal moo yaayu kee ma àndal. ndeysaan waaw ndeysaan donc su ko defee daay may mhm. lu ma ma lekk wala wutal ma lu ma jàpp nangam nangam waaw macha ma commencé di ànd ak daar ji ndànk-ndànk man façon gu ndongo nga woon da nga yëngu woon da tooñ man du ma woon dong bu yëngu waaw kañ du ma mën a tooñ hmm. taxoon na ba alaji màgg jéey yaram musuma dal hmm, day def su suñu suñu tooñee. waaw man daf may wane ma demal toog fële. xam na ne bokkoo mu ne lu xaw mu ne wóor ma ni bokkul ci tooñ bi kon nag du ma du ma leen dóor dóoraale ko moo tax musuma door yàlla xam na ko. ba ni mu génn àdduna. musuma dóor. Mhm. léegi man daaw ma tooñ. Mhm. duma dugg ci giraawal yeeg ñoom seen yooyu. Mhm. benn euh, ñemewu man trop su fit rëyutoon. waaw moo tax li xool yi du ma ci dugg. ma jàpp sama njaabur rek waaye nag li ma fi indi muy jàng moom mhm. suñu ma bindalee bala ñoo añ ma tari macha allah loolu moom moom xamoon naa ko bu ñu demee ci tool yi ñu ne da ngeen dem foti fori gerte wala ngeen jaaxal wala ngeen def yëf mhm. par bu ñu wax danaa ko feesal ñëw ànd naag sama rakk joo ji su ma ko faraaliwul moom du añ ndax buñ ne ko amul kilo gerte doo añ mhm. moom du am kilo donc man maa koy yóbbaale forson ba for bosam yóbbu nu nu bokk añ ndeysaan waaw kon daan ngeen dundee noonu daara dem wuti ci biti indi ci biir ngeen daal di bokk. waaw dañ daan bay. da ngeen daan bay dañ daan bay dañ gerte. waaw dañ bay dugub. Mhm. ak mboq ak yu ni demee. macha allah suñ bayee bu noppi lépp góor gi fab ko def cim sàqam. Mhm. ñu ñu ne ca ndànk-ndànk ba balaa muy jeex daanaka nawet bi ñëwaat. macha allah waaw. bu bu bu bu weesoo daara ji. Mhm. maanaam yaa ngi jàng mais ñu ngi lay liggéeyloo pour nga mën a am responsabilité. waaw. lan nga jàngat daara lan lan moo la ci ah, formaté. ok laaj laaj nga laaj ba solo. Mm-hmm. gis nga li ñuy tuddee tey carrière métier. Mm-hmm. man daara ma ko jàngal. très bien. sama bi yëpp ay métier la. Hmm? sama bopp bi. waaw lépp ay métier la. waaye mënoo def yëpp nooy def léegi. waaw maa maa ngi def dafa gëm lu ma sept wala huit. sept métiers. des na lu bari. des sept métiers ci ñi may àndal ci liggéey bi. d'accord waa Ali Imran yooyu. d'accord. xam nga lu tax. Mhm. daara ji kenn daawul xëy tëdd. du noor du nawet. saa boo xëyee dana am da nga am loo def. mais loolu ñu doon góor ñi góor gi doon def loo. ndekete ay métier la. d'accord exemple day xëy nañu. Mhm. dem leen wuti daqaar. ñu dem ci àll bi yéeg ci garab bi daqaar yi sàkk daqaar yit ko. d'accord benn leen mu ñëw mu ne dem leen ngeen sàkk buy. Mhm. benn yoon mu ne dem leen ngeen wuti ñax. d'accord gis nga façon yooyu mu ñu doon dugal affaire yooyu. Mhm. mooy def ci dongo. Mhm. mu mën a yi ay métier arab ibda la koy wax. Mhm. nga xam ni ki mën naa xëy def naa muy métier mu teg mu def naa muy métier mu teg donc yooyu ñu ñu ngi koy fàttaliku ci daara ji. dañ daan bay ba mbay mi jeex. su nooree ñu ne ci yeneen. luñ noppi rek ne ca la ca des waaye xëy tëdd moom daaw ñu ko def. d'accord moo tax fi ne tam mu boobu. Mhm. daf lay jàpp ba nga mel ni soldaar. d'accord man fi ne mën naa xëyee sama kër. Mhm. comme tey jii nii. waaw damay génn sama kër 5 heures 30. du matin. du matin. waaw 22 heures laa fay dugaat. te doo yëg benn coono sa du ma yëg du ma benn coono kaar kaar ginnaaw yàlla. macha allah <laughs> macha allah. alhamdulilah macha allah am na solo. yàlla na ko yàlla saxal. amiin euh, bu ko defee bu ñu jógee si loolu. Mhm. mais mais yow Sass yow fan nga xalalu góor ca daara ja ba tey. Eh, waaw ca daara ja ba tey maa ngi ko mottalee nag Mbàkke. nga mottali ko Mbàkke. waaw maa ngi ko mottalee addina daal ak xew-xewu jamono. waaw mais soo soo jógee daara. waaw ñaari xew xew jamono lan la cee fëkk du bari. Hmm. dafa ndax daara am yar bu mu yar ci yow boo xam ne. Mhm. li nga bokkut da nga yëg ne bokkoo ci lii. lu mu xumb-xumb ak lu mën di mel yow comme bokkoo ci wa iza marru bi lahum marru kiraama loolu ngay doxal <laughs> alxuraan daa wax ne bu ngeen rombee lu ngeen bokkut bu leen geestu tax jàll leen léegi bi nga fa yeggee yaa ngi yaa ngi toogaale ak métier bi ma yeggee Mbàkke bi ma yëg see Mbàkke waaw toog maa ngi métier xanaa jàng naa alxuraan ba am lu ma ci rek mhm. waaye toog maa ngi métier léegi après noo def ba am après bi ma ñëwee ba Mbàkke nag mhm. ci laa delluwaat jàngiwaat nag arab d'accord ma dem suñu dëkk tàmbali jàng arab ba am certificat. d'accord dellu si Mbàkke jàng arab ba am ba am BFM. Mhm. wala ba waaw defe naa ko waxee. waaw waaye léegi comme arabisant yi boo amee BFM daanaka mën ngaa jàngale. waaw loolu la ma dugal ci njàngale. nga doon jàngale kat. ma day commencé nag dugg ci njàngale. Mhm. foo ko tàmbalee ba tey. déedéet euh, ko tàmbalee dëgg ndax jawre ci booru fu ñu kayal d'accord foofu lañ ma yóbbu woon fa laa jëkk a tàmbalee jàngale arab métti woon na métti na méttiwul parce que yàlla day may léeg lekk mhm. loolu ñu tuddee pédagogie mhm. bu la ko mayee da ngay ci mu dëgg la ko mayee non seulement da nga noppali ci njàng mais da ngay am da ngay yàlla da lay may kon mhm. benn technique de communication boo xam ne non seulement sa élèves yi da ngeen ñoom mais parents yi yëpp da nga a ànd ak ñoom ci ci communication boobu. dëgg la loolu nag damaa bokk ci ñu ko yàlla baaxee. maa ngi ko ci waaw léegi yow jàngoo tubaab xam pédagogie. waaw pédagogie xam nga lakk lakk amul nationalité. wute na xam-xam ba. njàngale it amul nationalité. dëgg la ba tax pédagogie amul nationalité. dëgg la fi ne su ma su su ma yoroon kare di jàngale arabe. Mhm. ñi jàng tubaab mën nañu maa suivre est que ni may def noonu la am déet. Eh, eh, yaa saas waaw yow dangay wax ba ci biir wax ay tubaab. waaw. wax ay moo yu dëgër. parce que dañoo nekk ci réew bu bari ay tubaab doomu nag ku dëgër fit làkk ni ñëpp <laughs> waaye man bi ma njëkk ñëw Dakar may wax ne leen benn baatu tubaab fanaan si sama bopp bi xanaa il est mort. il est boobu moom xamoon naa lu muy teg il est mort. il est mooy dee na. waaw parce que dañoo ma am benn accident. ñu jël xale bi yët ko. <laughs> yët ko docteur yi. docteur bi génn rek ma dégg mu ne nga japp ilemor ma daal di japp ilemor daal di xamni ilemor moy den ci la ko xamé li ci def lepp na xayna fara to ko def yef ak non sen su ma waxe bu jub na professeur Jibi. dal di japp sa ñam japp sama jàmm. wa legi sa sa sa sa <coughs> sa caractère. Mm-hmm. maanaam féex maanaam diisaloo dara. Mm-hmm. woyof yoyu ci ba nga gimmee la ba tay wala lo lo taatagal sa bop la wala lu la yàlla bindee. waaw sama yaay daf may wax ne. bi may doon gone sax xawoon naa mel noonu. Mm-hmm. <coughs> ngeen jéggal ma bi may doon gone sax xaw naa mel noonu. Mm-hmm. léegi nag loolu dañ ko dañ maanaam bu yàlla mayee dara. Mm-hmm. yaa ko yokk. nga yokk ko yaatal ko. a yokk. ni mako ko mooy fii nu toog nii mag ñi fi nekk. nga doon leen lim léegi nga xam ne ñooy magi réew mi li leen mayoon ñu nekk fi diir kenn dundu fi ci ñoom ñu nekk fi tuuti rek chance jamono ji li leen ko mayoon moom dañoo fexe ba nit ñi ñeme leen ñu ñeme nit ñi ñu fexe ba nit ñi bëgg leen ñu bëgg nit ñi seen message jàll walaay ndeysaan lu rek la walaay ndeysaan waaye bi nga toll ci xale lu góor ba nga nekk jàngalekat nga gis situation bi ni mu demee am na ay yu xewoon ca jooju jamono ay ñoomin pantalon ay ñoomin mbaxane ay ñoomin west yooyu daan nga bokk ci yooyu euh, pantalon daanaa ko sol hmm. mbaxana cabine musuma ko sol. waaw. ay pantalon woon sol naa ko teel naa ko bàyyi. <coughs> waaw sa style daal tubéy la woon. ndax damaa ñëw ci benn conférence. waaw. yi ñoo jàng arab ba noppi di tari. <coughs> am ci xale bu tudd xaadim jóg tari. waaw. ma daal di jóg jël ci bayit Sëñ Tuubaa mm-hmm. di ko tojal mbooloo mi. genn góor daal di fay daanu. Mm-hmm. daa dem këram yanu fa yu ñax ñax sëpp ko may ma ko ni ma addi Sëriñ Tuubaa ñax nag laa wax daa delluwaat ñëw delluwaat di delluwaat bañ téye ko mhm. mu invité ma reer mat la bi ñu ko tegal ci lalam la ma génneel daan lay lalal daan may lal ma maa ngi mel ni tey ji Sëriñ Tuubaa lay dalal ndax li nga doon wax hmm, bi waxtaan wi jeex nag mu ne ma man de soo yëkkatoon kàddu xanaa dem ak sa col googee du ma xam ni nga mel nii. dëgg la keroog bu ñëw ñëw ñëwee mbàkk laa ba fii nu toog. macha allah donc message su gi laa dégg. jàngale la waaw jàngale mu rëy. bu rëy bi sama rakku yaay bu jëm yàlla na ko yàlla yërëm Jaafa jooy na ko ñaari fan. ndax mu ne ma yére yu daan sol daf laa jàppoon. te boobu xale nga. <laughs> te boobu xale laa. ma ne ko mën naa am ma jàpp ma sol yu ma gën a jàpp. mu ma yaakaaruma ko. dëgg la jooy na ko trois jours. ndeysaan. donc ba teel a bàyyi yére yooyu. Mm. kon kon jotoo jotoo def yëfu xale lu góor maanaam labat ay xale yu jigéen maanaam yooyu yëpp jaaroo ci. waaw xam nga góor bu toll ci denc moom dana labat. kon labat nga. waaye dañ ma dàq lu yàgg. <laughs> dañ maa dàq dàq dàq ba nit ñëpp yërëm su mu mujj ma doo am soxna. waaw tax ñu ne doon dàq. ah ku say nelaw doyagut. waaw ku nelaw doyagut. waaw am loo weccet. waaw bokkuloo fenn fi. waaw ma des na laa xeeb ci loolu. waaye nag ëllëg nag kenn ah, hmm? jigéen ñaari ñi lay may. jigéen mën na la bëgg ndax ëllëg. waaw waaye moom teew mi teew lay bëgg. Hmm. jigéen mën ngaa dugg ci xale mu bëgg la. waaw waaye yaayam moom teew mi teew rek. tey rek ah. comme yoroo tey dara. waaw te te man nag li ma daan ma hmm. dàqee. waaw. li may may suma bopp de. waaw. amaguma ko. li ma addunay may it amaguma ko. dëgg la li yàllay maye nag nangu ma genn góor ëppale ma ko. mooy jom ak ngor ko fit. waaw sama nijaay ma njëkk may jabar. Mhm. keroog ma koy waxee loolu dafa xam. dafa xam. daa ma ko wax dama ne ko. Mhm. di may boppam ëwma ko ko. Mhm. li ma àddunay may amaguma ko waaye li yàllay maye moom du ma noon kenn ëppale ma ko muy jom ak ngor ak fit waaw loolu ligne de vie bu ma bu doy waar la mu ne ma nag loolu la ñu wut ci jëkkër wallaay dëgg la bi nga jógee ci loolu lépp ba takk soxna jànkonteel ak àddina te boobu ba tey yaa nga woon Mbàkke déedéet kañ nga dugg Dakar waaw kay ak lu la duggal Dakar laaj nga laaj bu am solo <laughs> bu fi bay nekkoon ma may la ko door laa tontu <laughs> fi ma la wax dama faa jàngale. fa. Mhm. dem Saalum jota Seyaan. Mhm. jóge fa dem Louga. Mhm. kër Kabasi. jóge fa dem Manarul Huda. jóge fa dem Hanafiya. jóge dem Ñem Siise. dem Kër Mbaarik. jóge dem fu ñuy wax Njare Touba Njaay. saa su wër ma may demee jaru Touba Ndiaye nag. ba jóge fa. ma mm. dellu siwaat école ba doon jàngalee. Mm-hmm. ñu ne ma léegi arabe yi ñoo ko jël waa Makka. ñoo jël école ba ñoo école bi. Mm-hmm. te ku amul diplôme bu jógee Makka doo fi jàngale mm-hmm. waaw toog naa fa mu at mu saf sap. ngay dundee naka. may dundee ci kaw euh, bu añ jotee. waaw ma dem kër ga añ. waaw bu tëdd jotee ma ñëw sama néeg tëdd. Euh, mënut a ñàkk di góor gu yor dara loo déggee wala ñuy wax buñ la ko waxee buñ la ko waxul. dëgg nag ma am pexem kon léegi naa ñëw changé liggéey. Mm-hmm. am na ko may seetaan ku ñuy wax mbargu siise. Mm-hmm. moo ne ma léegi. Mm-hmm. kaay nga dem fu ñuy wax Tambacounda fekk fa Momar saar moo yoroon agriculture. bu Tamba. d'accord boo fa demee dana la may dana la jox benn budget peut-être. financé la. nga def leneen. nga jaay xar. d'accord comme tabaski gaa ngi ñëw. léegi ma départ Louga pour ñëw Dakar am na góor la bu ñu daan wax Ibrahima ma Lamine Tandia ci ban jamono la bu yan année ay quatre vingt quatre ñëw ci quatre vingt neuf. na góor gouverneur bu nekkoon Louga bu ñu wax Ibrahima Lamine Tandia. dëgg indi ba garage. Mhm. dugal ma ci oto. may ma téeméer bu ma paasee Colobane ak Medina. Hmm? ma wàcc Colobane comme grand bi ma sol dafa euh, am ndaw kondaa bu sàcc 500 ba. <laughs> ndaw kondaa bi mu def dara baax. noonu la def de ma jóge Colobane dox ba Riven 2 angle 31. sorewul torop mais. Euh, saf na ci gan. saf na si bu gàddu saagam. wallaay ndeysaan. ma ñëw sama bàjjen dalal ma. Euh, ma war faa toog. Hmm. ba nawet jot ma nawet yi wala ba ba koor gi jeex kon. Hmm. ma jàll Tamba. parce que ki ma doon yóbbaale dafa am ñaari conférence yu mu doon suivre. waaw fële aéroport. waaw nee na il faut mu ko dooroon dem Tamba. d'accord ma kon ma xaar la. waaw comme pexe amut. Mhm. mais diir bi koy xaar nag. te koor gi dugg. waaw jumaa ji ñuy wax jëppal te mu jàkkaarloo commissariat bi. waaw ka doon tafsiral. waaw Hadj Aziz yebal ko mu umra ji yóbbu aw gaay yi. dëgg la léegi nag jàkkaam kenn kenn tafsiru fa. kenn fa. sama xarit bu ñuy wax Oustaz Ahmed Dame Ndiaye. waaw man am na benn xarit fii li ngeen def lu ci jàkk ji mën na ko tafsir ñu ne ko indil ñu ko mu indi ma. yàlla ñëw foofu laa tàmbali nag tafsir waa jàkk ji ne ma soo tafsiree ba ngoon mhm. daañu la fay 2000 francs ci li ñuy am fii ci. ci ci sarax si. waaw daañu la ci jox 2000 francs man loolu neex na ci man di. ku amul woon journée 2000. waaw journée 2000 baax woon baaxul waaye tane na. woon dégg nga. <laughs> su ma wàccee dem ñu biti leen rive 2 mhm. bu soo ma xëy def ci waat mais avant may jeexal nag mhm. ci la ma benn baas jaañ dégg daal ne kii tafsir fii ci jàkk ji mhm. woo leen ko mu ñëw jàpp ci liggéey bi ci rajo bi loolu moom loolu moom yóbbu ci rajo yi d'accord waaw am na góor gu ñu daan wax euh, mbay yàdd bi mu ñëwee def ne ma waaw yow sa tafsir bi yaa ngi ko enregistré mu ne ko mënuma ko enregistré xaw ma lu ma ko enregistré aw ma xaalis mu nga ma enregistré ko ma ne ko waaw mu jàgg moom laay ab ay cassette pour buñ ma woowee ci benn rajo hmm? waaw donc loolu moo dugal ci rajo Dunya. bi nga ñëwee tàmbali rajo bi. ñëwee tàmbali rajo waaw amul dara lu la jaxase wala lu bees. waaw bi mu ñëwee ci rajo euh, koo xam ne dañ lay yemloo hmm. fi ngay yem. li ngay wax. li ngay wax. Hmm. doo def lu ñu la def loo wut. dëgg naa am doo problème. bi mu ñëwee benn baas daf ne ma demal fanaan yaag oustaz tey oustaz ma déglu la. d'accord dem fanaan auditeurs yi di posé question di laaj nangam ak nangam. waaw bi ma xëy benn baas ne ma xaw ma mën ngaa jàngaleem déet. Mhm. xaw ko ndax li ngay wax mokkalu ma ko. dëgg la waaye mu ne ma ñaar mu xam naa ne am nga ko. Mhm. mu ne ko benn mu ne benn mooy pédagogie bi moom gis naa ko bi ci des mooy accent bi nga am. Mhm. su ma sañoon dama lay dama lay dama lay dama lay def nga nekk kuy animé musique. Mm-hmm. loolu benn baa sax keroog. déedéet yàlla xam na ko. bu mu noo def. Ah, def ma xam ne kon am na lu mu gis ci yëf yi. kon naa ko dencal diine ji bañ ko jox musique bi. ñu tàmbali. Ah. mu woote réunion ustaas yi ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane bi tey wax ci wax ju rafet. ndeysaan ku mel ni euh, Cheikh Awa Balla Guèye. wax ci wax ju rafet. ndeysaan mu ne ma kaay tàmbali ma daal tàmbali. naan daxala dugg na xaraja génn na ba 22 juillet 1999 waaw léegi bi loolu amee ba nga ba nga miin rajo waaw léegi naka nga def da nga gisaat feneen fu gën a duun gën a baax nga dem déewu lay léegi lu la xam nga damaa ñëw rajo rek lu la fa jële damaa ñëw rajo rek kolos jàngal ma technique xam nga kolos waaw DJ kolos DJ kolos waaw damaa ñëw rek mu jàngal ma technique moo ñu yar ñun ñëpp ndeysaan damaa xamul nag. dafa tayaloon te bëgg ay nelaw. waaw. naa mu tax mu jàngal ma technique parce que su ma nekk ci technique bi dama koy suñu nelaw fële. pour yow ngay teel a ñëw. pour <laughs> en tout cas moo ma jàngal technique maa ngi ko gërëm ci lu <laughs> ci ci ci wàllu woowu mais dama ne ci rajo bi. waaw ba juillet. 99. Mhm. yooyu soriwut ak bi fi Cheikh Serif ñëwee. <laughs> waaw Ngoné Soosa. léegi rajo Sud FM ña fa nekkoon ci oustaz am problème ak Cheikh Serif demal ak bul dem ak dikkal bul dikk kon rajo ba kenn nekkatu fa bi fi kenn nekkatul léegi euh, am na ku ñuy wax Pape Joxaane moo daan xëy ajjuma di def émission yi ba mu yàgg mu leen man du ma du ma du ma léegi wuti leen ko fi nekk ñu ne ko ku wutal ñu ci la ma Pape Joxaane moomu ñëw woo mu ñëw ci rajo ba mhm. ñu ma léegi demal nga def émission. ñu déglu la. bu la yi ne baaxut nga dem ñu bi biñ ne baax na nga toog ma ne ci loolu mu yóbbu rajo si defam ba fii nu toog nii. macha allah waaye déw moon pour fii moo gën a wam wala fii moo gën a nangam. waaw ndax eh, gars yi ba ñuy dem ba dara. kenn waxu yonent bi da nga may fay nangam ma door a. walaay dëgg la luñ fa amee rek jël nag. walaay dëgg la waaw teraanga ju ne nag amee naa ko ci rajo. walaay ndeysaan. waaw moo tax bu nekk si defam it ñetti rajo ba ñeenti rajo woo nañ ma. kuñ ma coo ndax man nga maa yokkal ci liñ may defal mhm. ñu ne lan ma ne man am naa ci si defam nangam ak nangam limal leen yu bari su ngeen ko mën a yokk ma ñëw ñu ne àll ah, lu mënuñ ci teg dara ma toog moo la fa téye ba tey moo fa téye ba tey hmm, léegi man bu ma la doon dolli lu ëpp lool di nga ñëw waaw soo ma dollee lu ëpp li ma li si defam def <laughs> waaw dem màkk fukk yoon ak juróom-ñett hmm. ñaata nga ciy dolli ah, def ñaar fukk ah ñaar fukk gàtt gàtt nga am quatre cartes gris cinq loo ciy dolli. dolli si benn muy fukk. jeex na loolu nag la gaa yi mënul. Hmm. nañu bàyyi fii rek. mais kon ñun mun nañu jàpp ne Oustaz Alioune Sall c'est un milliardaire wala c'est un la ñuy wax. maa ngi la maa ngi ñaan nag may ñëwagut cinquante deux milliards dafa agsi gud nag. dégg naa benn message di mu nag boo xam ne moom bu dëkkut. waaw mu ñëw. <laughs> message message boobu intéressé na ma lool. mun nañoo xam message bi lan la. waaw parce que waa ji daa woote mu ne. waaw Sall Sall mi ngi ñaan cinquante deux milliards. waaw ñoo def opération cinquante deux milliards. dajale ko. mu ne comme nous sommes treize millions ci seize ci Sénégal. waaw bu ko nekk joxee nangam at mu jot mu am nangam ma ne ko wax ko ci kaw. kon waaye xam nga dafa am lu. waaw loo xam ne bu ko ñun amee ñëpp jàpp ne am nay million mais ñun dañu jàpp ne danga nga am millions yu bari loolu la dugal. ci politique fekk na le fekk na léeg-léeg. waaw may reere cerek ndox. ci ji jamono. dama ne. waaw fekk na léeg-léeg may reere ci ndox. man si jamono ji jamono ji ndax ñàkk lu nekk fii. yow mi man man Alioune Sall mii. yonent bi dafa toog ñaari weer këram du taal taal ci. dëgg la lim am da koy jox nit ñi. dëgg la dëgg la. Euh, soxna si dëgg la. xam nga bu nit jógee Touba mbaa mu jógee Thiel ma xam Mbakol. waaw ñëw di suma soxlaam. Mhm. fi ne su ma ne ko waaw ba beneen yoon du ko gëm. danaa day gëm ne ñàkkoo ko dëgg comme du ko gëm nag damay fexe ba loolu nga xam ne du ko gëm ma fexe koo def damay dem ci bitig ba leb ko cinquante mille wala quarante mille ñëw ne ko am ñëw toog jàpp sama jàmbur seet ba xam. des ak sa borom ah. parce que fi ne su ma ne awma xaalis duñ ko gëm. yow fi ne ne awma xaalis. denc nga waaye xëy na bariwul. waa bu fi joge mon la sama compte ñaata ci nek ah relais bi mu jini wa mutul 50000 ker may teg sama xéer bu njëkk ci dara ji 40000 nek sama compte. wa légui iman ngay wéyee ba ba ba ba dugg ci yenn parce que japp nañu né so démé bay joxé ay caution wala ngay def politique nit ñi war la dar nga war di joxé di dimbali nit ñi. ah wëlbatiku war a gérer daara ja diggante lekk ak naan ak faju ak yëpp oustaz nooy nooy demee nooy jalonné. merci beaucoup sunu borom laa wax ne kuy joxe rek lay jox. dëgg la ku joxewul siquma yow dara. dëgg la loolu la sunu borom wax man nag loolu dama ko gëm. ko appliqué nii. rek. d'accord ndax euh, dafa am sunu woykat bu faatu ci fan yii ñu ko wax coon sekk. wallaay ndeysaan ko yàlla yërëm. xam ngeen ko bu baax suñu xarit dafa yar ci doomam yi kenn ko bi muy toll ni ko daan jox am journaliste bu ne ko waa yow ñii sa kër gi nii di toog ñëpp ñu toogaanu duñ la duñ la déranger mu ne non baax te yaatu ñu ne ko lu tax mu ne dañuy wut si ah kon ka war na laa déranger mu ne déedéet su fekkoon aw ma lu mu leen di jox la may déranger mais li fekk yàlla ak may jox ma di leen jox nitu daara yi noonu la parce que suñu borom neen maa anfaqtum min shay'in fa yuxlif bu ngeen joxee ma jox leen mhm. mais ku ma jox nga téye damay téye sama loxo may macha ban vision nga am ba tax nga laaloon ci politique ak am solo vision vision bi ma amoon mooy dem assemblée nationale mhm. boo demee loo fa la bëggoon a dem mhm. bu ma demee di waaraati ci assemblée ba ci assemblée ba ndax ñu dégg rabbi sarax li sadri waaw wa yassir li amri waaw ma dégtal ko député seen ak seen borom. waaw dëgg la. message bu laa bëggoon a yor parce que Hadj Abdou Aziz moo neen woon. député daa war lu ñu lu muy lu muy wate. mu seet ca yàlla. digganteem ak président. Mm. digganteem ak nit ñi. Mm. donc yow yow sa parcours politique bi nga tàmbalee moo la yóbbu conseil économique. Euh, bokk na ca de. bokk na ca de. bokk na ci ba tax ñu ràññee la bàyyi la ah, xel. yaakaar naa ko de parce que président waxuma ne lii tax ma tànn leen waxuma ko ma wax dëgg yàlla. waaye daal xëy naa xëy benn bés yi dégg ci rajo bi ñu ne tànn nañu Oustaz Alioune Sall ba jëm conseil économique. donc yow fi mu toll nii jàpp nga ne yaa ngi def sa rôle ca foofu. waaw parce que saa bu ma xëyee defuma ko rek suba sa laay démissionné. d'accord saa bu ma ci xëy li ci lu ma war a xëy. su ma xëyee démissionné. d'accord saa bu naree yàq li may def ci diine jiit. waaw su ma xëyee démissionné. donc loolu bokk na sa caractère. waaw loo looy def te mu bëri ay am ay yu manqué nga bàyyi. xam nga benn discours laa fi njëkk a wax. waaw dama leen honorable waaw <laughs> dama bëgg ngeen bàyyi ma ma yor jikkoy karot carotte men. carotte men. lu avant ñuy togg añ ceebu jën. waaw égal carotte. waaw pendant togg gi. waaw égal carotte. égal carotte après togg gi. égal carotte égal après bi ñu añee ba noppi. égal carotte. ban couleur la karot yor. orange. ndax mu jaar fépp changé na couleur am bi. déedéet. ma ne leen bàyyi yor jikkoy carotte rek. Hmm. loolu sama discours bu njëkk ci conseil économique social et environnemental. ay carotte am na curry. am na. am na curry am na bu ñorul. waaw mais am na bu ñuy tay waaye mooy ji am na bu ñor ba ni laaj. moom kay loola neex def ko waaye égal carotte rek <laughs> loola neex def ko rek égal carotte. waaye léegi yaa Stas. Hmm. léegi yaa ngi conseil économique ban mbébét moo nekk sa kanam. fan nga euh, jëm fan nga jëm. fi ma jëm al jërëjëf. mooy suma cinquante deux milliards yi may ñaan. cinquante deux milliards. fi ma jëm. waaw léegi bu la président wowoon léegi jox la cinquante deux loo koy doyee cinquante deux milliards yaa saas. de non waxaat ko waxaat ko ndax mu dégg ko. président Macky Sall. waaw son excellence. waaw bu la woowoon léegi. tey émission bi bu jàllee ba pare. waaw am seetaan. waaw lay woo ba nga ñëw. waaw yëkkati bi cinquante deux milliards la. fan nga jëm looy def. très bien jërëjëf ci laaj bi <laughs> monsieur le président <laughs> na la li muy njëkk a def. Hmm. dama am daara daaru cibbu. am daara mbooro. am daara seew xaay. am ko càlle. am ko biir Thiès. am ko jama fële ca boori Mauritanie. am ko dëkk bu ñuy wax Mbarigo. barigo barigo genn gi boo génnee ndar am ko biir ndar mhm. am ko daara jolof mhm. hmm? waaw su cinquante deux milliards yi ñëwee waaw daar yooyu lay benn bennal maasal la fa nekk lépp waaw daf ko R plus sept très doy sëkk mhm. xale yi kenn duutul fay ñëpp dëkk ñëppay dëkk te kenn duutul fay nga jàngal leen ku bëgg jàngal alxuraan mooy góor mooy jigéen la foo mën a nekk. waaw ma dugal ci daara yi ngay jàngal alxuraan te du ma fay du kenn du ma fay. nga jàngal leen téere yàlla bi gratuitement. loolu lay benn ba ca tege télévision bi may xor-xoral tuddee ko Alimran TV. waaw léegi ma dugg ci yëf yi. def ko ba mu baax. def dugg ci canal yi. waaw def ko ba mu baax du dëgg. waaw moom itam jënd sama caméra yu seen caméra yi. jënd seen yëf yooyu nga xam ne koy sànni muy naaw ci jaww ji di filmé drone bi waaw waaw léegi yooyu dama ko ciy def ba ca teg mooy ne coow ba càlle lan tëdd déedéet ña seen kër nekk ay néegi ñax oh. ma soppi ko ay tabax dégg nga mm. bu càlle àggee mën a fa yoon wa texeet ba mbàkke tëli ko ñi di courant ak ségul mbëkk ci courant boobu mu ñëw fi dafa juróom-ñaari forage nag ndox mi di walwale ndox mi di walwale mën a gone yi bay la nekk Dakar gi ma leen dem leen ngeen ñibbi ngeen bayi ma yem foofu ndax léegi tey gars yi peraat ma quoi. waaw 52 milliards yi kon foog mu ñëw. foog très bien. léegi sept métiers yi. sept métiers waaw. boo ci doon taxaw. expérience bi nga am ak li yàlla dénk boo ma ko doon tracé yan métier lay doon ak loo jot a def ci yooyu métier. jërëjëf li ma jot a def laaj bi na solo fexe naa ba fi ne. maa ngi yar ganaar ginaar men ginaar men ñii nan may jaay yow mi waaw Alioune Sall ma nga ma ñëpp foofu la ñuy jënd se ginaar léegi merci beaucoup koy xalam di ca jaayu <laughs> barke wa yaay borom benn nga ginaar waaw éleveur nga fexe naa ba am boulangerie muy lakk mburu may jox gone yi ma jaay muy ñaar ñaar fexe naa ba am fast food. fast ndaw ko ndaa yi ne ci dëkk ba te bëgg fu ñu reere reer bu bu reeru fast food. waaw fa la si. ay sawarma ak yooyu. mu yéen loo foog. <laughs> ak ban ak ban yaaw saas fexe naa ba am ab kaar boo xam bi mi ngi ci télé bi. di daw. Marème Faye Sall bi moom ma ko may. Ah. bu xëyee tegu ci télé bi. bu weer dee mu indi. nga encaissé. déedéet ñun du man du ma enquête sama chauffeur. waaw boo dawalee ba weer wi dee ñetti cër cër la ñuy def. waaw ma jël benn nga jël benn oto bi jël benn nga continuer. ñëpp yem tolloo. ñun ñett ñoo ci yemle. d'accord képp kuy liggéey ci loolu tam noonu ngay def. fexe naa ba am boutique Ali Imran. mooy def parfum yeeg kii yeeg. très ak jasneer yeeg. waaw yu deme ni ki yooyu. dégg nga de. fexe ba ubbi sama benn benn. Euh, benn application. waaw. bu ñuy wax koppar. koppar men. ak bu ñuy wax dum koor. Hmm? waaw. fi nga toog nii. waaw bu la neexee ne caw ca ca ca kees ga dara su ma ñëw ñu ne ma lii gaa ko fi dugal. gaa yi di sànni. a ah. muy dugg. léegi na sëriñ si dañoo wax ne koo xam ne boo laajoon jox la boo laaju tooñ nga. léegi loolu fu muy noo koy defee loolu mbuddum koor yooyu ak yooyu du dugg noonu naka noo koy organiser naka lay demee. xam nga Dakar maa ngi fi yor ñetti téeméeri gone. Hmm. yoo xam ne fa lañ fa lañ dëkk di fa añe mhm. di fa reere mhm. di fa ndékkee mhm. di fay courant ndox. wallaay charge la. courant bi bi ñu ko wàññeegul. waaw quatre cent mille daanaa ko fay par weer. fii dem di fay ndox trois cent mille. ceeb bët bu set. Mhm. dañ dañ tëpp ñaari saako yi ceeb. yu cinquante kilos. waaw. xale lu gàtt gàtt naa leen indil 60 euh, wala 75 kilo mburu par jour. par jour. waaw. yow saas compte boobu il faut ñu xam ko di ci dugal. aw gor waaw dañ ciy dugal. man kay bu bu ma ko waxoon. waaw bi ma ñëw damay waajal damay waajal application bi. waaw gars yi na ko ci taxeet ma ne leen mi ngi nii. <laughs> waa léegi bu loolu weesoo. waaw léeg-léeg dañuy gis nga nga nga tontu. waaw léeg nga mel ni ku xaw a defante. waaw loolu ci ci ci yow la bokk wala dañ la cee puus. déedéet bariwul sax nag. waaw léeg-léeg la rek bëriwul. parce que yow da ngay da ngay ndax damaa am sama benn aide de camp. sama benn sa aide complice. mooy sama ailier gauche. mooy sa ailier gauche. xam nga Garincha. Garincha bu njëkk ba. bu njëkk ba woon ca Brésil. waaw waaw. kooku mooy sama Garincha. mooy taakale di def. man may man may pële. moo may centrel mooy dugal. tim. <laughs> bu ñu weesoo loolu yëpp. waaw gis nañu ne chaque jour si sa biir waxtaan. Mhm. ngaañ-ngaañ yeeg métti métti ak rëq-rëq yi nekk ëmb société bi mhm. da nga ci ñëw mhm. di ko waxtaanee mhm. mais style ba nga koy waxtaanee di nga dugal kaf di nga dugal mooy pédagogie bi ñu doon wax sànq mais du tere yaa ngi jàngale par rapport ak xëy na ku jàpp ni yàlla ak yonent bi ku koy waxtaane sallallahu alayhi wasallam foog nga diis foog nga metti foog nga indi safara teg te yow loolu du sa façon noo gisee loolu lu am solo la xam nga diine dafa ñàng xam-xam dafa ñàng safara dafa ñàng nit ci boppam dafa ñàng soo boole ñàng-ñàng yooyu kenn du la déglu yaa saas defe naa dañuy taxawaat tuuti ci li nga xam ni mooy attaque yi ñu doon wax léegi gis nañu ne dañuy téye nit fenn ñu lay chantage wala nga gis kilifa gu ñëpp ormal ñu bëgg laa doyadil di defante yenn yi di ko waxante ormaalatuñu sa sa nawle njaboot yi jaxasoo na sëy yi benn presque xanaa yu si dëgër sax xanaa mooy yéen ñi ñuy def secret yi xanaa peut-être mooy si tane donc lan moo xew. Euh, jërëjëf xam nga lu xew. Hmm. Euh, ñun dañuy ay roy dàq. roy dàq lañu te àdduna si dañ ko bëgg a mondialiser. loolu lu mu jot suñu gëm-gëm. tëral ko nouvel ordre mondial. Hmm. léegi nag su boobaa ordre bu bees boobu. waa ña ci bëgg a bokk ñëpp dañuy complexé buñ complexé wàcc lañ yoroon dabi leneen loolu ñu ko jural. ba tax ñu am yenn tolluwaay. waaw dañoo complexé. d'accord ba mais loolu bu fekkee ne loolu xew na. Hmm. fekk fa lam fa war a fekk ci dënn ba mu war a doon. Hmm. dënn bu am lu ci jiitu. waaw moom. est-ce que dina demee noonu. déedéet. dënn boo xam ne daraa nga ca. kon loo ñuy digal loo ñuy digal. ok dënd boo xam ne daraa nga ca. waaw lu ñëw da nga fay fekk dara jooja doo fa dugg. d'accord tey maa bu ñu doon wut fu ñu loué. waaw bala ngaa am néeg da ngay fekk néeg boo xam ne bii dafa libre. waaw néeg bu occupé doo ca dugg. donc xolub tam noonu la mel. dañ ciy jiital dara dëggal ko ci ba mu dëgër. lu ñu wute bëgg caa loué dalay wax ne néeg bi dafa occupé nga dem feneen. kon ñu dellu ca loolu. buñ delloo ci loolu rek fi nekk jàmm ñooy. d'accord ko defee duñ complexe. mais yow Sass lu la dugal RTS li ma dugal RTS eh, amoon ngeen benn directeur bu santoon Njaay bu yàgg. Hmm. waaw booba RTS ca kër ga fële ca biir dakaar ancienne ah, maison. dafa ma woo dama damaa bëggoon nga ñëw jàpp ci liggéey bi. di def waxtaan wuy tàmbali. heure sàngam heure sàngam. waaw ko ah loolu nag dafa dëppoog heure bu may def waxtaan ci rajo. te nekk ca rajo ba nekk ca tele ba gars yi dañuy bàyyi rajo bi ñëw ci télé bi dëgg la allahu akbar daal may bàyyi li ma demal mm-hmm. ma dem mm-hmm. ginnaaw gi bi directeur yu bees yi ñëwee mm-hmm. ñu ñëw jël si ma ne ma dañoo bëgg nga jàpp ci liggéey bi ci bu koor gi ñëwee ma ne waaw parce que comme lii national la ñun ñëpp a ko bokk loolaay woo ku ne da ngaa war a ñëw fab sa du ñëpp xorom def ca ñu ne ma kon nag ci mën ngaa ñëw bokk loolu moo ñu ci indi depuis. Mhm. léegi tey mat ay at. bu koor gi ñëwee. ñu nekk ca. léegi nag koor daaw bi mu jeexee nag. Mhm. a ñu ne ma yow kat li fi jaar ci ay waxtaan. Mhm. am na ñu ko rafet la ñu toll nii. ñu bëggoon loolu mu yokk. ma ne fas yàlla. d'accord bu ngeen man chaque jour nga def waxtaan sax ma ñëw def chaque jour waxtaan parce que national la ñun ñëpp dañ koo bokk. d'accord loolu moom ma indi RTS. Euh, léegi dañu gis ne sa sa sa sa style sa sa habillement dafa simple et pourtant da ngay jaayi jesneer di jaayi yëf di jaayi bagage. <laughs> wax nga laam solo waaw waaw lu tax nga bëgg simplifier rek. damay bañ nit ñi. waaw di seetaan sans ñu déglu ma. Ah. jeex na. d'accord que saa ma leen indilee lu lu lu bokkut ak li ñu war a am rek. waaw ñoom dañ fay bàyyi waxtaan wi. di ma seetaan wu ci sol tey ah oustaz sañse bu ko du jàll. du jàll léegi man naa sol rek loo xam ne lii. waaw ku ñëwoon suma kër moom ngay fekk ma sol. su ma la doon invité tey lan laa lay toggal lu loo lan mooy sa façon nga lekkin. nga xam ne damaa bëgg damaa bëgg añ sa kër tey. waaw da nga may toggal ganaar. waaw bu ànd ak ceeb. ganaar yi ngay jaay mbaa du jeex. te weex non ganaar xam nga naar yi may jaay ganaaru tubaab lañu. bëgguma leen. léegi produit pays nga bëgg. ok parce que ganaar yee. yi nii. da nga koy pooboro pooboro pooboro ba sonn mu xaw saf dara. ganaar yi tubaab yi mais suñu Jangan. yi jël ko. da ngay togg naturellement mu neex. jeex na. waaw sa relation ak yeneen jàngalekat yi. allahu akbar bii laaj di neex na lool. waaw man ñu neex rek laa lay laaj. bu tabaarkàlla. ayca jàngalekat yi. waaw damaa xam ne maak ñoo bokk équipe. la. ñu war a am benn match. waaw bu capital. waaw contre kan. contre seetaane ki gaayam. Mm. Mm. dégg nga. Mm-hmm. kon ñun jàngalekat yëpp dañoo war a nekk benn équipe. dëgg la. su ma jotee bal man koo kottu ni El Hadj Diouf. waaw dribble jàkkaarloo kenn man koo paas bal bi. dëgg la. kooku bu ko deferee paas ko keneen. dëgg la muy masala yi dox diggante ustaas su amee ci kenn ci ñoom ko xam ne ki buñ ko joxee mu dugal jox ko mu dugal ñun ñëpp ñoo am bii daal door seetaani 1 0 bu téyee bal bi la. jeex na bu téyee bal bi la. bu kan téyee bal bi bu kee téyee bal bi waaw su boobaa léegi nag ñun buñ demee ba ci vestiaire yi ci ci ci ci <laughs> buñ jëlee mi-temps ba ci vestiaire yi ñu waxtaan ak moom bu du téyee bal bi mu teg suñu waxtaanu biir mais duñ ko wax ca kaw rajo ya ah ci kaw de baaxul. ñii football ci ci vestiaire yi. waaw la Aliou Cissé di wax joueur yi eh diw. Mm. yow kat sa match bi tey nangam ak nangam. góorgóorlu waaw góorgóorlu wala deel yéeg. waaw wala bàyyil bal bi ngay téye. waaw loolu ci seen siin ba lañ ko waxee. waaw ñu génnee ci match bi changé. tam nun lañ war di def nag bu dara xew diggante. Mm. ñu dugg ci roq waxtaan bu ñu génnee ñëpp xam ne waxtaan nañu. Mm. ñu fi footballaat football bu rafet. man noonu naa ko jàppe moo tax du ma offensé benn oustaz. Mm-hmm. du ma tontu kenn. Mm-hmm. ku ma ci xam sa masala sax su may su may jàngalee waxaale ko ci. Mm. ba noppi ñaan la ñaan la fan ak bu faatoo ma ñaan ko aljanna. ndeysaan macha allah noo gisee média internet. waaw dafa mën a defar mais dafa man a yàq. Mm-hmm. parce que média daa aajowoo te nogoy amul professionnalisme. waaw kuy nogoy. moom li mu mooy gis na dara daal mënu ko ci xëpp. da ngay ko togg añ ba noppi filmé añ bi sànni ko ci. ki dafa xam li mu def naa bokk yendoo bi métti ak a daw. waaw parce que ñëpp a añam bi. média nun la mel. Mhm. dafa am ñu ci wër te dem. Mhm. bu mu ca dem. nogay nag sunu doomu baaj sunu doomu nijaay la. sa doomu nijaay la. yaay papaay nogay. ak sama yaay. ñoo bokk benn papa. waaye ya ba ngay wër ñi lay dàq te woon nga jël nogay rek te jooju jamono. si dafa ñaaw. wax dëgg yàlla ñaaw na ñuul na waaw waaw dafa ñuul ñaaw waaw jëba rëy jëba lex ya <laughs> lum sol mu ëpp ko te ta togg yëpp boole na ko da ngay nag dootoo ko dootu la dab nag Wow. mu toll nii ma nga faa sama kër laa ko bàyyi déedéet kay waaw ndeysaan nee naa ko yeewi mu door a dem xanaa suma ma demee yeewi ko léegi looy looy dolli xale yi njaboot gi ndeysaan ñu ngi lay gis nga évoluer laataa ngay tàggoo njaboot gi li ma leen di dolli waaw mooy sunu borom nee na ki ko jaaxal. waaw mooy ki dul def dara. ki jéemul dara ki jéemul dara. Mm-hmm. wala seen jaahadoo fii naa. Mm-hmm. nee na ku kër kër yi. Mm-hmm. loo xëy maa nga boo ko xëy. ragal rek. mu napp la. ndax day nappaate. waaye koo ko ñeme dem. wax la ci tàmbali bi. man bi ma ñëw Dakar aw ma paas. bay dugub oto. dañ maa koli xam nga koli. ba noppi may ma téeméer kolobaan lañ ko sàcce ma doxe fa ñëw ba Medina te kat ab diir laa fa toog tuuti takk fa ab ñaareel te yoruma ñaar dërëm. yow mii maa la ko wax. waaw loo wax ñaareel bi ba mu nangu. dara. léegi yow sa système lan la da noo daan da nga daan charmer wala da la adduna. Mm. dañ koy ñeme loolu laa bëgg wax rek. nga am fitu boobu bu dee ne takk te yoroo dara. Ah, nguur lekk ka naan folle ko day bette. ngóo lekk ka naan fole ko day bette. yes waaw. waaw léegi noo gisee RTS nag. waaw RTS alhamdulilah. Mm-hmm. Euh, bu dee lu ñëpp bokk. yi nga sañ boo ko defee daañ xam ni yi nga sañ te ñi ngi def ay sañ-sañ yu baax. suñu façon suñu style. suñu waaw suñu règle euh, ci koor koor daaw jéeg daawaati jéeg. waaw bokkut ak seen kooru daaw ak kooru ren. ren kenn kenn seetaanu leen ngeen di teg yu saful xorom saful sukar. ah déedéet. te teel yaa ngi fi def saf xorom saful sukar bu bu bu ñuy dog. yéen kaccat leen ci man kañ dañ maa ngi fàtte woon yow sax. Ah. am na xale yu bees yu branché. waaw ah xam nga lu ñu la tuddee. waaw oustaz sucré salé. tekkeel ma ko. sucré salé lañ la tuddé ñu né sucre bi. waaw moy bu la nexé di nga wax li nga bëgg wax yépp ci kaw kafoore. waaw waaw. bu la si nexé nak nga xëc buum gi ba mu dang. lolay sombi lolou moy sombi. moy sombi. sombi waaw. sucre sang ca xorom sang ca. waaw te kenn féetul sa morom kaw. waaw kon mosoo ko dégg. tawazun bobu dafa am solo mosuma ko dégg. waaye nak japp ko sucre salé. nun la bëgg mel sax bi. sucre salé. lolou alcorane jangale nak hmm. li takunu xam kuntum xayr um-, wasatan mhm. ummatan wasatan mooy koo xam ne da ngaa digg doomu mhm. doo ëppal doo yéesal macha allah ne ci digg bi buñ ko mën a noonu koy defee macha allah loo waxoon si góoru benn jabar waaw góoru benn jabar xanaa wax ne ko yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm soxna du vitesse waaw oto dixième dawe hmm. am déet dëgg la boo siggee séenoo kenn nga defal troisième ba télé bi yaatoo nga def quatrième bu la neexee dem ba ba Thiès te doo ko teggi. benn nag fas yéene waaw comme neex. mën nga copte benn. dara newu ci de xanaa. déet comme neex. mën ngaa copte waaye da nga muñ ba sonn. d'accord ndax day xam ne da da nga ñooru ba sonn. Hmm, am na ñooñ sax nag na ma yàlla baal. waaw gisoo phénomène bu xew léegi tudd takk suuf. waaw gisoo ko ni mu parce que góor ñi bëgg nañoo ñaareel. te te jabar yi bëgguñu wujj. ñu dem ci ma xam mbaakol takk fam ñaaram neex yi. ñapat muy takk suuf. jàpp seen ñaam lu loo ko waral. waaye yow fu mu toll nii mënatoo jëlaat de. xanaa da ngay wàññi déedéet da ngay euh, lislaam may na ma waañ wàññi. waaw waaye naa ko may nga ma ko mais du ma jëlu ma ko. donc doo wàññi. ah ko de. léegi boo gisee benn xale bu la topp sopp la amoo ay soppe yu jigéen waaw xam nga xam nga su boobaa xam nga su boobaa wàññi gi daa am lu ko doon waral mais yaa ngi am soppe yu jigeen xam nga leen te kenn xamul ñu toll di lay woo di la wax lan déet buñ ma buñ ma wax papa na nga def loolu fa la ñuy yem ni que fi ne nii dama niru papa papa laa mosuñu laa wax leneen non xam nga léegi hmm. ku am nii mu am nii hmm. na gone yoo xam ne ñemewuñ ko jéeg dina papa lañ lay wax gisoo soo seetloo am na jamono yoo xam ne bu jàngalekat yi professeurs yi. dañoo magoon étudiante yi. d'accord booba kenn ñu mënut a xool si ki lay jàngal naan ko je t'aime. parce que dalay mat papa. dëgg la léegi bi mu changé nga xam ne daanaka professeurs yi. ay xale ak étudiante yi. benn benn génération lañ. waaw gis nga lay xew. ñun nag loolu moo ñu ci moo ñu ci muccal que ñun am ñu génération yooyu. waaw mais oustaz du ñàkk sax si ku dul xale sax jéeg bëgg la rek ne la man. déet buum gi rek laa soxla. ah kay bu la jéeg bëgg la buum gi laa soxla. waaw nga ne ko malheureusement. <laughs> tey nag gis nga fiñ la dalal ñu leen di remercier lu bari muy musée des civilisations noires mm. nga gis pàcc bi nga xam ne nag moom la jàkk leen képp koo xam ne rek kilifa diine nga mm. Eh, te saxo fi Sénégal mu nek lu rafet nak wax deug yalla ma sha allah ñuy tassu yenn ñu yalla tass sen barke. lan ban gis-gis nga ci am. euh jërëjëf xam nga man dama dem turki wa deux ba trois fois. hmm nga benn musée boo xam ne bi <clears throat> li la am. ma sha allah. ma gis rang gi dañ koy rang. Mhm. fi ba port. pour visiter ba pour visiter ko. 11500 ngay fay door dugg. deug la nga dugg. ñu ne la jaasi Ousmane jaa ngi nii. wallaay ndeysaan. la simisu Yuusufa baa ngi nii. ba ci karaw ku tedd ki. dem ba ne la gis nga leket gii ci la yonent mujj naan soow. wallaay la. kere ba ma ñëwee li ma njëkk wax mooy. Mhm. pourquoi Sénégal mënuñu am lii. Mm, fii nag maa ngi fi door dugg tey. lii macha allah rafet na ci man. Mhm. waaye mhm. bu ma sañoon man ma dox jéego bu la ko yokk. macha ndax bagage yaa ngi ci réew mi. yëpp a ñëwagut. dëgg la bagage yi. Mhm. ñu ngi ci réew mi yëpp a ñëwagut. dëgg la boo duggee Saalum doyal. Mhm. boo ñëwee Bawol doyal. Mhm. ba demee Kajoor doyal. dëgg te mag ñëpp ku ci nekk. du indi lam am lépp waaye mën nañ caa cof dara indi ko rek fi fees del. donc man bi ma fi duggee léegi loolu laa doon sentir. moo tax tableau yëpp daanaka liir naa leen. ndeysaan. tableau yëpp daanaka lii naa leen maam Cheikh El Hadj Malick waxam juree ji wallaahi nga xam ne ku fi ñëw liir ko nee na yërmande yàlla ñëpp ci xaj band yeeg ñi nekkul bandi nag ñëpp ci xaj mu ne ko su fekkoon sax yow ñi baax ñoo ñoo ñëw sa kër kon fu bandi jëm xawma ko loolu la wax fii kon jugé doomu adama nañ ko cër boobu nañ ko bàyyee yàlla nañ ko bàyyee yàlla ko ko ak moom mu gërëm la ci sant la ci te yor ko nag moom dong ku ko bàyyi wut ak moom mu rëdd rëddaat boo laag rëdd ba suul. maasale la maasale la. jërëjëf Cheikh Oustaz kontaan nañu. kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax a baax. Eh, yow da nekk koo xam ne ku spécial ci ñun wax dëgg yàlla diisaloo dara. et ci ñàkk diisal boobu ci la ñuy jànge mm-hmm. wax dëgg yàlla loolu moom pédagogie bu am solo la ci gërëm di ci sant. defar nga lu bari loo xam ne wax dëgg yàlla xëy na sax xamoo ko. alhamdulilah ñu gërëmaat la santat la ñaanal la fan guddu wër bu ànd ak barke yàlla sàmm la euh, ñu jéem sét nak inshallah xamna ni boko téron xam di nga indi application bi fa ñi duggalé yefi yi du wess bu ko défé dañuy jël sa numéro waaw incha allah danaa ko indi parce que ñaari application waaw nationale ak international incha allah bu ko défé RTS dal di lay défaral pañe ndogu boo xam ne boo yeggee mhm. nga def yefu càlleen waaw hmm? yët ko ki ay yët ko ki aye waaw ah doo ko séddale mu yem. déedéet démb ba ma demee fenn ñu yët ma. ka ay laa ko yët. léegi noonu nga ko defee ki ay lañ ko yët. léegi bu gi jeexee te keneen ay te amul nag. déedéet cest à su koor gi jeexee. waaw ma am leneen. waaw loola ma am ca ka ay ka la jëm. waaw comme ñëpp daal di yem. gis nga bañ ma njëkkee fay trente mille francs ci conférence. waaw ak feet la woon. feet dama ñëw fekk fa soxna sa. jox ko quinze mille jël quinze mille. mu ne ma lii nag ma ne ko dañ ma koo fay ci conférence. yaa ngi seet nga tàmbalee. ñu yëkkati 30 200 laa tàmbalee nga naan 30 200 fan la woon. gé <laughs> après nga daal di ci ñaata. après ma yéeg ba ba la am bu corona bi ñëwee nan nga noo corona bi. corona xanaa yàqal ma lu bari. ndax dafa daan dem Europe waaw boo demee Europe danaa dem Espagne. naa dem Allemagne. waaw danaa dem France. waaw Italie ma dem dëkk yu bare bare bari. corona bi ñëw na ma doo dem. mais même bu dul tukki bi fii ci biir dëkk bi. ah corona yàq na euh, circonstances yi nga xam ne yëpp moo <laughs> waroon dajaloo. pour nit ñi mën a conférence nit ñi mën a daje nit ñi mën a gindeekoo ak yooyu parce que loolu aada la woon tisaan la goo xam ne dañuy weeru koor bi ci lañu daan def yooyu. mais nan la la marqué ak lu mu la yàqal. Euh, li ma manqué mooy. public bi ma daan jàkkaar lool wax fa ñaari baat ak ñett hmm. am ku fa jóge coppite ci dara yóbbu loolu manqué na ma lool ren peut-être cinq conférences laa def xaw ma quatre hmm. waaye public bi ni mu daan mel ni tollut noonu donc loolu manqué na ma mais conférence am na ci am nga ci lu ne xanaa am naa ci lu ne da ngay caché wala dañuy yëkkati rek jox déedéet du ma caché hmm. am naa ci lu ne d'accord waaye li ma ci amee nag yéewut samay gan ba ñëwee kër siège yaa ngi toll ni file ba fii ni laa koy rangalee su ma jógee conference li ma ci amee léeg-léeg dama koy joxe ba noppi dugg ci biir am lu ma ca dal li ñu door a mën a yebeeku yàlla ko yàlla fay. amiin man conférence musuma jóge ci conférence jënd ci oto wala leneen la may am kay xanaa ci neen lañ koy amee. mais bës nga am lu duun xanaa ci conférence. déedéet conférence nii. Mm. mukk li am duun kay or or or conférence lay doon. <laughs> ban zone. hors conférence lay doon ndax léeg-léeg nit ñëw ne ma yaa leen sàll mu daa ma ne lii maa ko def ci liggéey bi ma wàññi muy lu baax waaw réew mi nag bëgguñu ku wax ne diwoo ma defal nangam ndax ay bokkam dañ koy xas dëgg la tey su ma doon soxna Ayisa daf maa may 4 millions am ku ne niw romb niw romb nga niw romb nay sëg mhm. waaw reer romb na reeru loolu lañ lay wax donc léeg-léeg nit defal la da nga naan ceel rek te xam ne defal na la. waaw te mënu ñun mënuñoo dund te ñu ci diine ji loolu la ñu am. jeex na jàngu jaaxul saar baa jeex. mu ngi noonu jeex na jeex na. alhamdulilah Saas kontaan nañu jërëjëf Sall. Mhm. yal na yàlla wéral. amin yàlla sàmm la. amin ndogalu nag moom ndox dajal lu ne ngi ci biir. baax na de waaw. baax na parce que suppu kànja loolu mooy mooy mooy mooy melokaanam. mooy supp dafa suppu kànja. dafa suppu kànja. waaw kañ yow tam noo ngi lay jaajëfal. jërëjëf yaa sunu yaay yéen a bokk tur. walaay ndeysaan. ndax soxna suñu jur. Aïcha la tudd. ñun yaa Seydina Aïcha daal mooy suñu turandoo. ñu bëgg ko da jël si moom. yàlla nun yàlla bële bëgg. waaw jaajëfal nag sa caméraman yi. jërëjëf sa technicien yi. ku ci nekk balaa diwén. waaw yàlla nga yokk ba yëg ni yuy yokk. sama réalisatrice ñi fi ñi fi ay góor it. may fi nu buñ dencee ñu ne yam ci benn képp. yàlla yal na yàlla may leen fit bu ñu ndax ngóor lekk ka naan fële ko day bette. dëgg góor. day xëy xëy ci lu métti. mbaa lu jafe. xëy di nelaw baaxut. Baye mbay mooy sama papa nee na. boo xëyee dara metti la. taalal ñaari gaas. léeg-léeg nga laal bi ne ayya nga laal bi ne ayya Baye mbay mu ne waaye xëy dara metti la rek nga toog nee na baaxul ci góor. te ndox mu doon daw lee mu nëx. yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu eh, ñoo ko déggandoo jërëjëf yaa saas kontaan nañu wax dëgg yàlla na la yàlla fay si disponibilité bi jërëjëf eh, taataan nañ fi xam-xam boo xam ne doon ñu jëriñ incha allah ñu kontaan lool si eh, weeru koor bi nag ñu ngi profité wax dëgg yàlla mi ngi ci fin bi mm-hmm. jeex na ba pare yàlla nañ ci yàlla yóbbu ñun ñëpp kenn bañ manqué ñu déwéwaat déwénaat leen rek waxaat leen rek euh, déwénati di leen baal di leen balu euh, di wax rek yàlla na yàlla def rek ñu fekkee koy ati ati at te rafeti fekk incha allah yàlla def sutura def ndam ah te def xéwal yu bare bari bari ba ndax mbébét yi bari nañu yàlla na yàlla def ci kaw weeru koor bi ci euh, njeexital gi xéwal yëpp saawaan baawaan incha allah def jàmm ci Sénégal Lina nag moo doon euh, seen émission je t'invite le corps. di wax nag encore un grand merci fii nga xam ne fa la ñu nekk tey des civilisations noires euh, tey ñu gërëmaat leen ñoom itam santaat leen euh, di leen dig daje yéen itam ba beneen yoon